dal di nag jàmm ngir yokk doole jéego yi nga xam ne ci xeex yenn feebar yi tey faagaagal wérgu yaramu askan yi OMVS daal na séddale lu toll ci ñeenti million ak juróomi téeméeri junni sànq yu ñu nandal may it lu ëpp ñaari million ak juróom-ñetti téeméeri junni ci ay garab lu ni mel ñu wekk ko ci projet bi ñu duppee PEGIR di projet de gestion intégré des ressources en eau ñaari weer laataa ñoo clôturer boobule projet tëgg nañu ab atelier régional ngir saytu lépp loo xam ne jot nañ ko ci def ak li nañ ko ci jooyanti Anta Seck mooy coordonnatrice projet PGIR bu OMVS ñu teewlu ko ci micro Moustapha Sall. tey duñu daje woon euh, pour euh, saytu dañu def ñun ci lutte contre le paludisme euh, au niveau de l'OMVS donc du PGIR un projet boo xam Banque mondiale moo ko financé résultat yi macha allah ñëpp xam nañ ni résultat yu baax la tey Banque mondiale wax na léegi moom mooy partenaire bi financé projet bi ñëpp kontaan nañ ci résultat yi ñu am def nañu ay enquêtes enquêtes yi montré na ni que plus de pour cent population yi concernée dans notre zone d'intervention ñu ngi utiliser Milda et Milda c'est pour réduire quand même le taux de prévalence aujourd'hui il y a cette satisfaction mais également le fait que nous avons travaillé avec des partenaires des ONG notamment agences d'exécution communautaire qui ont assuré la distribution ñoom ñoo assuré woon distribution bi milna yi comprimé yi tam ñoom ñoo assuré distribution yi et tey ñeenti état yi tase fii yëpp Guinée Mali Mauritanie Sénégal rafetlu nañu euh, liggéey bi OMBS à travers le PGIR def ci jatraité ñi ngi koy utiliser à plus de 80 cent dans la zone d' intervention sunu projet bi. Euh, seen zone d' intervention Mali Sénégal Mauritanie. waaw mais dans la zone du bassin bassin du fleuve Sénégal foofu 69 districts la bon Sénégal déjà 24 la mais ci santé bi fexe nañ ba 69 districts yëpp couvrir nañ ko. en matière de mille-dents. garab yi ñu duppee antipaludique di garab yi xeex feebaru sibiru te ñu koy jaay fii ci Sénégal ay garab yu wér la yoo xam ne defar nañ ko ni ko système pharmaceutique international santané bu ñu sukkandikoo ci ab étude boo xam ne agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique moo ko fësal altine fii ci Ndakaaru résultat yi nag ñu ngi ko doon wasaare ci teewaayu professionnel yi yëngu ci wàllu pharmacie gannaaw ab l'enquête ak contrôle boo xam ne amal nañ ko ci diiru benn at ci Ndakaaru Diourbel Kaolack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 Bonjour chers auditeurs, pour contribuer aux efforts des États dans la lutte contre les maladies qui freinent le développement et mettent en péril la santé des populations, 4 500 000 MILDA ont été distribués dans la région du bassin de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour la lutte contre la schistosomiase et comprimés livrés entre autres. C'est dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau PEGIR à moins de deux mois de la clôture officielle activités de lutte contre le paludisme dans le bassin du fleuve Sénégal s'est tenue à Saly pour se pencher sur les enjeux et les perspectives de cette lutte. Voici Anta Seck, coordonnatrice du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGIR de l'OMVS au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, il s'agit de faire la revue des activités menées dans le cadre du projet pour lutter contre le paludisme. Et pour cela, nous avons travaillé et recruté euh, des agences d'exécution communautaire qui ont fait la distribution euh, des moustiquaires. Il y en a eu 4 500 000 des quatre États, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal, à raison de 1 125 000 moustiquaires par État. Nous avons également développé de larges campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement. les mildas sont dans la zone du projet à des taux qui dépassent 80%. Surtout au niveau des femmes enceintes et des enfants, ont large travail, une large campagne, de mobilisation a été menée, de masse, mais également de masse, mais de proximité. Euh, pour la lutte contre la le paludisme, mais c'est Là, nous avons distribué 2 800 000 comprimés et à raison de 700 000 comprimés par état, surtout au niveau des écoles, les enfants, et les résultats aujourd'hui sont, sont, probants. Nous avons également, avec les programmes PNLP euh, des États, euh, développé des études euh, de recherche opérationnelle surtout, mais également des enquêtes euh, pour voir le degré d'évolution de la maladie Et, et, on a noté que de gros efforts ont été vraiment fournis et les résultats sont, sont fort appréciables. Des zones vulnérables, oui, mais l'objectif du ministère de la Santé, c'est vraiment c'est l'accès universel. L'accès universel en termes de couverture de, de milles et autres et l'éradication, pourquoi pas, du paludisme. Et nous y sommes. Nous, nous sommes là pour appuyer les États dans la mise en œuvre de leur politique en matière de santé. Euh, non, c'est sur la durée du projet. Le projet a démarré en 2014. Il va se terminer en 2023. Les médicaments antipaludiques commercialisés au Sénégal sont en parfaite conformité avec ceux qui sont recommandés par le système pharmaceutique international, selon une étude de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ARP publiée lundi à Dakar. Les résultats partagés en présence des professionnels de la pharmacie découlent d'un contrôle mené pendant un an dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, Kolda, Kédougou et Ziguinchor, selon l'agence de presse sénégalaise qui indique techniques et